abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi abonné leen ngeen abonné te ngeen like bu baax a baax vidéo bi ngeen like ko mën nañ mbir mu doy waar mi nga xam ne rek daal nay xew kii di Guy mari Sagna di guy gu dëgër gi daal di si dellu si waat ci kawteef bi nga xam ne rek jot naa am ni ki démb foofule ca diwaanu jigéen Ziguinchor muy ambulance bu nga xam ne rek mën nañoo wax ne ñii di takk der yi dañ ko daal di utiliser nag pour fa yéene am accès ci kër ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ña nag xamle kàddu yi ni mel nekkat loolee naqarlu mënta passé naqarlu ko nekkat gannaaw bi ñu daal di remarqué kanekat gis nañ ambulance bi nga xam ne rek ma nga doon daagu ndànk jëm ca kër ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko xale yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkoon ci buntu kër gi daal di mujj nag daal leen di dogaale ci lañ gisee kanekat ay takk ñoom ñoo si nekk te seen jubluwaay moom moo nekkoon kër ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko di image bu nga xam ne rek mën nañu image bu ñaaw la ci Sénégal rawatina nag réew mu nga xam ne rek dañ naan réew mi réewum teranga la moom mii nga xam ne nag mooy Guy Marius Sagna mën nañ ñee sax gëjoon nañoo gis mu daal di génn wantekat bi la yoon révélation bi nga xam ne rek def na ko nekk boo xam ne rek bu am solo la ci naqarlu ak métit lu nguuruk Sénégal fi ñu toll ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen doomi réew ci jamono yi ñu toll nii mën nañ ne xawma naqaral lañ ko mën a tuddee wala sax dem ba amatoo yaakaar ci sa doomu réew nekkat nga di leen di torturer mbir minimel nag mën nañ moo tax kii di Guy saañaa Sagna dellusiwaat ci fee yi nga xam ne rek moom moo daal di jommal jaaxal askanu Sunugaal di leen di jaajëfal di leen di wax woy leen di abonné te ngeen di abonné bu baax a baax ngeen di bës j'aime bi seen j'aime dina ci am solo ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon dikkaat ci yeneen di jàngat